président Macky Sall tamit a su tout le temps mun naa wax sax surprendre son monde tey euh, choix bu mu munti jël décision bu mu munti jël jàppal Maodo Awa maa la ko wax fii. Mhm. ce sera le meilleur choix et la bonne décision. Mhm. xoolal mu yéex mu gàtt. il va choisir. mais le problème mooy est que tout le monde va suivre. parce que boo seetloo les uns et les autres par rapport à ce qu'ils disent ils sont pas prêts à accepter cette décision bu fekkee ne du ñoom wala lu ñuy waxtaanee la ba teg ko fu leer. mais xam nga tey chacun parmi ces candidats à la candidature est libre. Mhm. de donner ses son, opinion wala wax moom ressenti am. dalu respect jëm ci président. maanaam man xam nga la laa siy wax rek la ci maintenant chacun est libre dans son coin def sa communication mais lenn xam naa ko mhm. tey euh, coalition bi ñu nekk wax naa la ko sànq c'est une coalition historique te cette coalition ma waxaat la ko la stratégie de du président Macky Sall mu yéex wala mu gàtt bés bu tànnee man maa la ko wax fii que mu am sax kenn ku génn kooku moo si perdre parce que ñun nous sommes une coalition très soudée et ma wax la leen tamit nag la coalition Benno Bokk Yaakaar c'est un appareil politique mm bi nga xam ne dafa solide yàgg te ñu nekk ñu ñëpp benn malgré nos différences malgré nos différends tout le temps ñu ngi am doole nekk benn say. Mhm. te xam nga cette force là foog naa ñu loolu moo ñu dimbali ëllëg pour ñu gagner au premier tour. Ah. léegi ku munti dem nag moo la dara avec euh, la coalition bu mu am mu am la coalition Benno en face man jàpp naa ne la coalition Benno moo koy gagner. te ah. boobaa kooku moo si.